ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah maama Lamine le 22 mai. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëri. en direct seen affiche point com di wax fan si yëpp dem seen affiche point com jënd ko ci seetaan nga foofu. le seen affiche point lay daw na ko gaa yëpp xaar wa baax a loolu moo des nag yaakaar naa ne amateur bu lamb yëpp xam nañ ko moo bëre woon ak Modou Lo Papa Sow Tapha Boy Bambara bëgg bu bare bare bare bare ba ci yaakaar naa ne bëri nga ak Tapha Gueye bëri nga mu fas yéene waxtaan ak moom ginnaaw buñ ko gëjee gis gis ko nag mu nekk forme xaw ma dafa bàyyi bëre xaw ma bàyyiwul waaye ak lu mën a xew tànk nañ ko fii Fatick war a waxtaan ak moom tuuti rek nuyu naa la bàyyi la nuyu mbokk internet yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mbokku internet yi di leen nuyu tamit waaye. wala dañ laa gëj a gis ci lan nga nekk. waaw maa ngi fi maa ngi euh, maa ngi fi ci samay activité waaw. est nañ xam ci lan nga nekk activités waaw man xam nga opérateur la opérateur la ci domaine élevage yaa ngi dégg maa ngi def sama entreprise bopp waaw ci milieu milieu élevage jëm ci ay laitière ay ay embouche bovine affaire yooyu daal waaw. loolu moo tax nga arrêté lamb wala arrêté ko yaa ngi lamb non cest à xam nga mbir boo ci dugg da ngay am sa objectif. Uh-huh. xam nga plan de carrière dafa am. yaa ngi dégg par exemple tey fi nga nekk ni fi ma nekk nii newoon naa par exemple déwén war naa yegg fii nii ne def dessiner sa plan de carrière donc yàlla bu dofee bu dogalee nag par manque de d' par manque de de li war ci yow yaa ngi dégg par manque de soutien mënoo ko mënoo ko atteindre donc mieux vaut nga concentré wu ci leneen. Hmm. waaw looloo tax waaw. mais taxul nga bàyyi ba da nga concentré am soutien boobu hmm. te xam naa pour ma pour ma performer pour ma performer ni nga xam ne noonu laa war a defee samay performance dafa am moyens yi muy laaj donc moyens du moment où aw ma ko je préfère vraiment ma ma ma ma bañ a yàq sama tour quoi ma ma mettre à l'écart. est-ce du dëggal wax bi Birahim Ndiaye doon wax ni mbër loolu xam nga métier maanaam métier par exemple li may def ni tey euh, maa ngi ciy dund. Ah. Ah. mais nag doo ko mën a jël def ko ci làmb. parce que ëllëg comme li nga wax noonu li war a dundee ëllëg boo ëllëg boo ko defee si làmb après <laughs> donc dafay laaj ay soutien yoo xamante ni par exemple les hommes politiques laa xam ne dañoo nekk ay jeunes nekk ci département bi nekk ci région bi nekk royukaay ci jeunes yi yaa ngi dégg ñooñu aussi ñooñu waroon xanaa pousse pour ñu mën a yegg fenn fi parce que comme ni may wax rek facteur de développement la acteur de développement la ñu tey boo demee tey ba aw egg ci yenn yenn yenn niveau yi malgré soriwuma ci làmb lool ci bëre dóor bi li ma ci gagné te def naa ci sama entreprise mm-hmm. maa ngi am samay employé loolal la jëlewu ma ko ci làmb ji donc tey bu ñu ma puusoon ba ma yeggee fi mu war a yeggee ci làmb tey waxuma la la ay vingt personnes maa ngi employé tey dix personnes mm-hmm. ma la dix mais damay envoyé une centaine yaa ngi dégg parce que projet yaa ngi fi mais ok mm-hmm. waaw ok loolu am na solo mais gis nañ Keba Kandé jël na ay engagement que ni su ngeen paree pour bëre moom dina leen jàpp gis nga président Keba ñun dañ koy ñaanal yàlla man li may wax rek mooy li ma déggoon Khadim Samb di wax ne président Macky Sall yàlla ji moo ñu ko yónnee pour mu pour pour mu defar. Mm-hmm. t'as mm-hmm. donc damay jàpp sax ne benn instant tamit Kéba moom. Mm-hmm. yàlla ji moo def mu mu mu bëgg làmb yàlla ji moo ko yónnee aussi jeunesse su Fatick ci côté làmb pour mu jàppale leen. parce que booy seet euh, man damay wax ni dafa am ñoo xam ne Fatick dama leen di tuddee ñi nga xam ne dañoo. sonn live ñi nga xam ne seen dund dafa métti te dafay bari ñi nga xam ne wuyu ma les politiciens là comme suñu maire bi maire Fatick Matar Ba xam nga li ngeen di wax ni dafa baax baax baax yëpp waa Dakar di ko wax de waaw damay dégg parfois ñu koy wax. man voilà xanaa si ñoom la baax waaye fekk amul benn sportif rawatina mbër bu nekk fii Fatick man maay seen porte parole ci man ñoom ñoom ci man la ñuy roy donc damay wax seen li nga xam ne ñoom ñoo ma ko yóbbu considéré wuñu non amul benn consideration ci sportif mbëru Fatick yi gis nga daba ki gagné may médaille médaille kii barki démb médaille d'or bi est nga ñaata lañ ko jox bi mu demee seeti leen hmm? su ma la ko waxee doo ko gëm dégg naa quatre-vingt mille la ko jox médaille d'or non médaille d'or dem gagné médaille d'or ci box ah mu ñëw seet gi mu jox ko ma ne ma ne ndaw si war woon jël loolu da ko waroon sànni sama combat Covent parce que dama am li tax ma gën a découragé ci làmb cey ma wax la ko nag te man dama jàppale mooma waa tey dama bëgg craché li nekk sama biir xol yaa ngi dégg dama am sama combat sàkkal fii ma daan ko Fatick yàlla ji dogal ma commencé retrouver sama repère ci làmb mais xam naa ne li war ci man tant que aw ko mënuma bëre parce que bëre xel la te xel bi bu nekkul yaram bi du fonctionner taa bi léegi mën na def may jàppale ci combat boobu ci côté mobilisation car ma jël combat ba ma jël combat yaa ngi dégg su ma demee Fatick bureau ministère mu naan man nañ dem Fatick ma ñëw Fatick ma mu ne man nañ dem biroo indee ji ma jaabanteloo ba ma ne ko eh, yàlla dogal na nag man ba may bëre àll ba laa juddoo di ñafe ba Sénégal yëpp xam ma mais ba nga xamee doo jàpp bu ma ko wax du dëgg donc genre nit ñooñu je pense que mérité wuñ sax jiite Fatick dama koy wax muy muy laajte nag ñu ngi def suñu def nañ suñu association tey yàgg na sax ñu ngi liggéey liggéey bu rëy dinañ war a président Macky Sall ne kii da yàqal fii ci région bi parce que ñun ànduñoo ak moom barki démb lañ dem abbi Sall bi ñu ñu jox ñu suñu accord dernier moment ñoom ñu ne ala Sall bi mbëri ay dof lañ gis nga fi yëfu dof mbëri duñu ay nit. léegi yen nekk la ñuy yore ay caméra di liggéey ci wàllu làmb ci ci milieu làmb du ngeen si gagné dara yaa ngi dégg amul lu muy serve est-ce que kooku noonu ku mel noonu war nañ war nañ ko teg ci kanamu réew kanamu ah donc. ñuy lancé appel président Macky Sall man la Paul Maurice xam naa xam nga depuis may bëre mbapat laay commencé di gagné say drapeau depuis premier depuis ngay nekk premier ministre boo demee suma kër samay sa drapeau rek a fa ne fépp fu may dox aussi man ragaluma président laa àndal parce que ñoo bokk gox yaa ngi dégg man damay campagne bu campagne bëccëg bouche à su ngeen su ngeen léegi sax ñu commencé wax ci politique moom laa àndal yaa ngi ko ne Matar Ba liggéeyalu ko da bi dinañ te dinañ sanctionné sanctionné wuñ ko nag moom président Matar Ba la ñu sanctionné. ok daw leen ci dara. dégg amul daw ok làmb ni mu doxee waaye làmb ji fi mu nekk nii li ma koy seetaan sax bëriwul waaye moom làmb moom dafa neex yaa ngi dégg ñun aussi dañoo bëgg lamb te tol sart ga lu képp xam ne facteur nga da ngay yokk en plus ci làmb rek ñun dañ lay daal di bëgg yaa ngi gis na nag may lancé aussi may wax benn affaire président Keba aussi ñu ngi koy gërëm papam aussi ñu ngi koy gërëm bépp mbërëm bu fi ne ci région bi laa la wax de am jàppale président Cheikh moo la jàppale mooy suñu président conseil départemental fi mu yaa ngi dégg moom moo la jàppale moo ñu soutenir ñu ñëpp ñu bari am nañ fi situation mooma ah donc ñu ngi koy remercier gis nañ ni muy jàppale jeunesse gi mais à part ñoom vraiment kenn jàppul. léegi bu fàttali ñu palmarès ñaata gis na nag su ma la waxee benn affaire sax donc góob. waaw loolu laa man ne su ma la ko waxee doo ko gëm il faut ma toog ma réfléchir xaw ma sax ñaata combat la peut-être maa ko dama ci am déception. ñaata defar nga am dama calculé woon yóbbu ko ci milliard yàlla ma tiim au minimum su ma ko mënul yóbbu ci milliard ma yóbbu ko ci 500 millions. yaa ngi dégg parce que man dama jàppoon ni làmb sport la boo xamante ni ñun ñoo ko moom mais war nañ ko mën a jaay au niveau mondial te jàppoon naa ne am naa maanaam inspiration bi ak innovation bi war a tax man mën koo jaay. waaw léegi xam nga. sport aussi comme li ma la wax rek mentalité xam nga ñu bëri xamuñ man boo ma gisee nii dama teel a bëri teel a am succès mais amaana sax âge boobu aw ma ko daanaka maag ñoom gars yi ñoom Modou ñoo nekk génération taa bi mais boo amee sa dignité am sa objectif ni lii dama koy def yàlla dogal loolu amul rek mental bu fa nekkul yaram ba du fa ne mais tey bu fekkoon ne moyens yooyu dama ko amoon ñëw stade bi fees step sama am naa public waa Ndakaaru Ndiaye amul kenn koo xamante ni ëpp na ma ci public wala ëpp ma la public amul mais moyen bi mën a mobiliser public boobu ba ñëw teew c'est ça qui fait gaffe. yow da bëggoon jël làmb yóbbu ko ci milliard wala 500 millions euh, Paul Maurice ku ne xam na ne ndaanaan nga champion nga macha allah tey euh, sa sa jom ak sa fulla ak sa fayda yóbbu na la fu sori ci làmb ndax tey bu ñu tuddee mbër yi dañ lay tudd léegi ñàkk euh, kii boobu noonu nga xamante ne li nga bëggoon sa objectif. lan moo ko waral ba mu takkateem bi ñàkk moyen la ñàkk jàppale la wala làmb ji comme ni ko gars yi di waxee ku ma am ndey la ku ma amul ndey la gisoo sax. non man xam nga man aussi damay wax ni làmb moom bu desul dara ndax arbitre sifflé na kooku dem pour man yu amatul jàppale amatul diw diw fii la far diw fii la far ndax ki nga daan ba war ci kawam moom dafa leer du dëgg peut-être que yi nekk ci gannaaw la avant làmb ji parce que nee naa la tey bi ma amee sama combat bi fii Fatick ba daan ba teguwaat ci raay normal dama jëloon décision dootuma bëre Dakar te aw ma yóbbu ma samay stade sama samay supporter stade ma sees ko xam am naa ko man na maanaam am naa ko supporter yaa ngi fi mais aw ma moyen bu leen mën a mobiliser ko donc côté jàppale bi moo tax man ma découragé parce que aw ma ko. am man moo la ci barki yàlla xam nga fu ma bu ma gën a neex nag. su ma la ko waxee sax xam naa di nga kii mais sama digganteeg Tafa Gueye tee. waaw boobu xam nga lu tax. waaw day combat boo xam ne daanaka. man mi sax du ma la wax xaw ma sax nu ma ko daanee après xaw ma foo mën a amee kii bu mun koo seetaan waaye boo ko seetaanoon demoon naa bi daanu ndax jamono yooyu. njëkkante tànk la woon du woon njëkkante tànk sax dem nañ xam nga. waaw jamono quatre appui la. demoon na ba def quatre appui ma fete ko kaw mais quatre appui du taxoon du taxoon nga daan nit ki day def quatre appui ba pare mais il faut mu jaaxaan wala mu tëdd ko carrément <laughs> waaw donc maa ngi ci kawam. bon mais daanu wutoon ndax kat avec téléphone continuer bëre ji moom mu jëlaat suma ma su tànk ma war a dem ja tëdd pour daanu mais xam nga yàlla ji rek teg loxo ëlbatikoo yéeg ci moom si moom si moom sax xam boo ko laajee dina wax ne loolu da koy yéem. defet yi bu la ci gën a métti. waaw xam nga fi ma commencé kooku moom jarul sax wax xam nga sama digganteeg Modou rek daanaka moo damm sax sama moral. parce que xa moo yàq sa lamb. moo taxoon moo sama moral fa la parce que moom daa am fu ma te lu ma visé woon fooguma ko woon. mais avant Modou Papa Sow daan na la. non mais loolu yëpp garaawul parce que sax maak Modou boobu final la woon. ku daanoon rek da ngay daal di jël pay ci poul bi. papa daanoon na mais rattrapé woon naa comprendre na hmm. mais vraiment fooguma woon mu daan ma ko honnêtement. mosoo ko yaakaar. mosuma koo xalaat wallaahi. kon bi mu la wax loolu laa wax ma ne. bi ma daanee rek ci la sama moral damm. man nag affaire nit ñoo ma ci wax parce que champion la te xam nga Sénégal dafa bëri ñuy seetaan làmb te xamuñ sax làmb. waaye néew na fi ñi fi mën a bëri. xam nga ngay bëre ak ñu lay bëre la bokkul dama bëgg nag nit ñi def analyse loolu analyse a baax di liggéey di liggéey liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey dindi dindi ba loolu nag moo fi bëri waaye xam kan moo mën a ki xam day taxaw arbitre ne fër mu dox ci kaw mel ni Ama Balde ah, mais Mourou yow Mourou donc yow Mourou donc Ama la wallaay moom Mourou ku na doon daanaan dama koy non waxuma def Ama Balde laa xam naa li muy bëre daal sama waa ji dama koy seetaan ba man sama bopp mu doy ma man ma sonn sax toog fi ma toog ma sonn xam xam muy def lan la. a doon daanaan laa bëgg a. moom Modou a doon daanaan champion nga xam nga ci lamb lu bari. xaw xaw ma sax ku gën a a doon daanaan xam naa daal man daal Ama Baldé daal fi nekk nii meilleur lutteur Sénégal man moom laa ko jox. mais ne mooy favori dama ne meilleur lutteur Sénégal parce que mën na nekk mën na dem Modou daan ko. mais la ci bëre ba parce que par exemple ma jox la ma jox la eh, eh, kii kii tey exemple Yékini xam nga ñëpp ne moo fi Hmm? dama la expliquer rek mais <laughs> attends moo fi man d'accord mais bi bi bi mu attaqué jee bi bi mu demee attaqué ji. lu am te ndaanaan la. donc man nag ki ma jàpp ne moo mën a bëri mooy ki nga xam ne day attaqué di defaan kon daal ama man moom la moom ci li ma seetaan ak man moom laa jàpp ne vraiment vainqueur la wallaay. kontaan nañ ci merci. dawa jaja fañ fañ fañ fañ fañ dawa jaja